yéen Gambien si ñi gën tax yéen ñu gën a contribuer waali nekk waali yéen bokk ngeen ndax mënu leen di créer ku mel ni waali Gambia by supporting him or her Gambia ñun dinañ dem ndax Gambia dina dem naa fexa ngeen imaginal baagi baagi xaalis te ñi dee doon even respect awa ma ni yéen ñii ñëw décembre gis naa fi benn xale nag wax ne wax ne semestre yi lii semestre yi ñëpp kii na di ko attaque kooku xale la benn ñaar man gëm naa ne lu moo wax digga la yenn semestre yi à hypocrite yenn semestre yi à hypocrite te ñi si bari nag di def loolu su ñëwee dixième waale da ngeen foog dafa dof programme bi daf koo def time boo xam ne yéen di ngeen jógee Europe ñëw Gambia ngeen jël seen alal gi yëpp may leen ko tax mënu leen di créer ku mel ni Wally bala ngeen di jël Wally di ko uplift bu uppat bii Gambien fi tey Wally su nekkee Wally ñoom la tey yéen Gambien Wally su nekkee Wally yéen la ndax amuñ Gambien si yoo xam ne mun nañ ko war nañ leen di jàppale ñu àgga fu Wally àgga Wally Gambien si sax suñ demee pour collaborer ak moom sax dafaa metti daf dee metti waaye still naaw mënu leen di eewu luñ ñoo tegal mooy ñun non man man mënuma understand this type of hypocrisy bu nekk di go on si dëkk bi de. Gambien si bon nañ de am na Gambien si bon ku ku nga xam ne meluloo noonu bu mu la naxari bu mu laa naxaree loola koo généraliser man su ma wax damaa wax kum naxari nga xam ne si ñoom nga bokk ah ñun am nañ esprit am nañ vision am nañ attaque am nañ Hussein Dada. am nañ Awa Gambia am nañ Miss Joobis am nañ eh, ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne yu kan néem dem am nañ ñoom Sef Ngom hmm? ñun ñun mi tax waali nekk waali ñu tax Youssou Ndour nekk Youssou Ndour maa koo wax ba ma neex ñun mi tax waali nekk waali tax Youssou Ndour nekk Youssou Ndour tax ñu mel ni Maam Njaay Savon nekk ñoom Maam Njaay Savon ndax mënuñoo jël suñ oon nit tax def leen ñu mel ni ñooñu du añaan du soxor dimbale sa bopp la jàppale sa bopp la koo dimbale muy Gambian sa bopp nga dimbale because Gambian nga bañu ma Sénégalais yi du ma leen musa bañ billaahi sista sey ah man mënumaa understand lii ba léegi dama dama calculer ba soona man dama wax pareegu ma ma dem Godson Gambia after some hours ma gis post nañ baagi xaalis bu ñoo may waali ma doog a xam ne ndekete waali sax dafa amoon jéem a Gambia billaahi xaw ma ko barke alquran xaw ma ko bu maa def suma vidéo bi xaw ma ne sa waali mu ngi Gambia barke alquranul karim xaw ma ne waali mu ngi Gambia ak lu am na yàlla bu ma am su fekkee damaa fen naa xalaku bi àdduna tukki xaw ma woon ne waali mu ngi Gambia man ma pare suma vidéo bi ñu teg si som awas rek ma gis Watson Gambia post waali ak baagi xaalis xam ngeen ñaata Gambian ñoo nekk di sofa xam ngeen ñaata su ñoo feebar di ut ndimbal jërëjëf ku mel ni Sey Touré jërëjëf ku mel ni Sey Touré yal na la yàlla yokka ba nga ko yëg ci barke alquraanul karim ah waay Gambia dañoo jël seen alal téye ko bu lu xaraam lu bon ñëwee ñu dugal ko si duñ ko def ci seen nit de lu xaraam lu bon loolu soo ko doon def sa nit yi sax war nga understand sa alal bi waaye dangaa jël sa alal bi indi ay nit teral leen teraangal leen. jox leen looloo loolu ñu ñibbi jaay la dof jaay jox jàppa la yow dof saa yu ñëwee nga def looloo loolu waxuma bu leen jàppale de waaye dooree ko sa nit ñi ni nga koo defee si moom defe ko sa nit ñi waxuma ne doo mun ngaa wax ne danga waaye man tam dama dee jàppale di dama dee jàppale Gambien si waaye ndax ni ngaa jàppalee ñoom yow ndax ni ngaa jàppalee Waali war ni ngaa jàppalee Youssou ndax noonu ngaa jàppalee sa nit yi nañ leen bàyyi hypocrite bi ñu waxante dëgga fii ku fi waxul dëgga rek dangaa dangaa fen fi waxul dëgg rek fen ngay def and the truth will set us all free ndax ni ngaa jàppalee Wally Seck Youssou Ndour ko kooku yeneen artistes yi ñuy ñëw international artistes yi ngeen di indi ndax ni ngeen leen dee jàppalee noonu ngeen di jàppale seen ay nit yéen pour jàppale seen o artistes yi sax dañoo struggle ba bugg dee ñu leen di utal support ci social media bi Wally doesn't need that support on social media déedéet yen a ko ekkati fu mu àgga te xam ne ne saa yu mu ñëwee da ngeen koo teral terangal ko te teral terangal ñi yes waaye doo leen ko defalal seen aada ndax ñu bi jaral na ko mu teral keneen si biti dan own am koo xam ne mi ngi rise pour give back si biir dëkk bi fii loolu yàgg nañ ko gis en yàgg nañ wax si lii but nothing still yes lan la bi dafa bon bëggut moroomam ku nekk si dëkkaam nekk si kaw fële ne wala moom mu def si am kooku mun a grow si noonu sunu entertainment side bi fii dafa over slow wala dafa over dellu gannaaw pour nga cappat nit ñëw mu ne la artiste bi la muy jàppale si neen noonu noonu loolu yombut maa si ñoom bopp kii tey ñoo ko fi nekkal di def ak ñoom singades yeneen anam comme di dimbale yeneen artist as well so much respect to that so what i count guy fee is only a handful of them yes but wax bi dem na na every year ñu feature pa yoo xam ne mooy loolu it seems like gambian bi moom mooy dof bi rek yeah gars dañuy ñëw di collect si gars gars di dem rek ñoom fu gars nekka pour gars develop seen boss duñ ko musa def waaw wax la ñu dëgga rek wax la ñu naka la nekkul comme ma nekkul comme mbiri den hate wala something Gambian bi ñun dundee def loolu nekkul part of hate la wala something but this is the bitter truth about Gambians and soo leen xoolee ba Senegalese they don't respect anything about the Gambia sad nation yet still mooy loolu rek because dinga wax be and they will come and repeat the same thing if not more again Gambians are losing their minds to these foreign artists, the Chahan. We welcome them like presidents and gayo suñ baxaay yëpp ndax suñeen artiste suñ yan artiste ñoo dee welcome day welcome gars come no noonu wala di defal gars yi façon triangle yu Gambia yi dee defar gars yi nii wax leen ma loolu si comment section below I'm just talking how I see things so wale leen ma loo leen xelaat si loolu it's not about hatred but lu kala Gambian bi bëggut moromam dem ci kanam li dégala and the activist lu mu fi wax yépp dégala yes comme ni ma ko waxee last time si mbiri xale boobu noonu ko doon wax mbiri semester su fekkee dunduloo lifestyle boobu du la naxari yes waaye soo ko dundee obviously def laa naxari nga xam ne this is it dina la naxari because it will slap you on your face so I think it's high time pour Gambian si eewu léegi mun a dimbale seen boppa first than di waste resources yu mel ni nii si yeneen foreign artists yoo xam ne they are not giving back to our communities loolu dof rek koy dof yes a support suñu boppa fii because ñu fi amee ñoom Mary Njie ñu fi amee Awa Gambia Ses Ngom ak ñu bari bari bari bari si wàllum mbalax rek waaye xoolal rek ndax ñoo den dee perform ngeen di génne ay baagi xaalis di ko jox gaay wala di gene ay dollars di ko jox gaay bàyyi leen hypocrite this is really not nice da nga fokk ne da ambiance wala pour jaay sa boppa ñena ay dof bi rek baham, dafa ko lek baam dox yes in the end mulu lolu rek ay couple of videos ngay am rek that's all ba soko sate sa diga bi fi nga dimbalé ñeneen yi trust me you gonna build a legacy and lila Gambian bi bu def so nit nit yi suñu waxee ngeen nekkat wanti den def nii den def nii den def nii fekka mooy dégga boo leen bëggutaa dégga and this is very disheartening mi ngi happen every year and lan la gaay dee bàyyi fii wala lan la gaay dee dugal suñ community wax leen ma so I think it's high time pour gambian yi so big big shout outs to the activist herself, Fadu Jan, although that they receive a such why mom popular ko Yes, and investment industry bi gonna build something production industry da gëna dem kanam in the end ñu leen nekk di sànnit baxa bi nii yëpp wala di def façon manière yi nii nii yëpp du ko def so obviously those people are going back to their countries and you invest foofu noonu run same things and they get more money léegi su leen helpee ay suñ gameen artiste yi di jox gaay ay baxa yooyu noonu ay 200 taaw si kaw stage bi ay 300 taaw léegi obviously de kooku dafa mun a am dara lu ma bilee carré am si dëkk bi la muy des su demee si biti tamit mun a assi dara kër soo yéen lii be kañ lii be kañ such a shame